avez-vous la grève des collectivités locales des agents. mais métti na trop difficilement. te ça dure aussi. difficilement te lu ma leen di ñaan mooy ñoom nañu nañu yërëm askan bi nañu yërëm askan bi te et li li yoon li ngor. Mm-hmm. mooy boo liggéeyee boo liggéeyul bul fayeeku. agent yi ngay waxal. oui. kon ñoom ñoom ñoo responsable à vos yeux. mais ils sont responsables parce que mënuloo tëj état civil pendant pendant presque un an. la grève yàgg na ah. est ce que tamit seen revendication légitime non légitime na. mais war ñu handicapé. légitime na war ñu ko paralysé ni ñu ko ni ñu ko am nañu droit laaj ko ni ñu koy laaj laa d' accordul. Hmm. d' accorduma parce que yow xale bi war a jàngi. waaw c' est vrai war a def examen. Hmm. war def concours nga bloqué ay nga bloqué ay dossiers mënu am sa extrait naissance wala bulletin naissance mais du yoon. du yoon. mais mais mais yëf yi dafa yàgg en fait amul beneen moyen bu ñu ko contourner wala am défaut d'avoir une solution. amul lu ñu mën a def loo xam ne xëy na dina. état rek moo ko mun régler ak ñun tam maire yi yow seen responsabilité. naka ngeen ko mën a régler. ku liggéeyul ñu bañ la fay ku liggéeyul ñu bañ la fay. mu di yeneen agent yu occupé poste bi. parce que war na am war na am au moins le service minimum. waaw. même décès des fois dañu bañ di dese mm-hmm, mm-hmm. décès néew bu nekk si biir morgue bi. maanaam leur grève manque d'humanisme. ñu koy xaarloo mm-hmm. kooku du yoon. am nañ droit revendique laaj seen revendication mais ni ñu koy laajee jekkul rafetut nañu sóor askan bi mhm. sóor nit ñi loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg nga am service minimum mais tey ku bëgg extrait da ngay daw Safa ak Marwa dafa yàgg surtout ah? dafa yàgg te mu nekk droit citoyen mu am extrait naissance boo ko mhm. soxla droit mais kooku du yoon